am na wala amul ñu ngi ci erreur xew bi xew xew xew xew xew xew xew newoon naa ko nañ tudd tudd biir néeg ñu wat xale bi joxe tur bi siiwal ne moom day woote mbaboor ay police mu jéem na ko te testé te baas ba pièce par pièce ba pare yóbbu ko moom moom jàpp nañ ko mi ngi ndungu si du ma la yóbbul añ ndax taluma ko fi réew mi toll nii tëgër bopp gouvernement bi woote nañu nañ nañ nañ nañ aj lépp ah trois semaines daa yàgg trois semaine daa yàgg doo muñ ngay woote mbaboor foo ko teg waaye tamit nag waykat yi dañ doon jéem a way rek jéem a ko kooku way ah, jéem a way rek di jéem a way lu lu am rek ñu way ci lu am rek ñu way ci way nañ seen yaay yi way nañ seen sëriñ yi way nañ seen amuur yi way mbëggeel coronavirus bi mi ngi nii feebar bu existe la way leen ko ministre de la culture moom bëgg naa kaa gis ndax mu investir sama son bi nekk sama mémoire jox ma ay milliards tuuti rek ma génneel ko single bu bees tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk vite waaw waaw corona bi jóge fi ale bu sa bëgguñu eh corona bi jóge fi ale bu sa bëgguñu loolu su ma ko tegee ak ay instrumental ko jamono nu ñoo investir ci man waay <laughs> Idrissa eh, Idrissa ah kaay kaay kaay kaay kaay ah Idrissa tey sañ si nga de ah taxawal taxawal taxawal taxawal moom rek taxawal noonu tey moom da ngaa sañ sa moom nii la lii laa la doon wax keroog nii la nit da ngay set ndax an nazaafatu min al iman ah? set dafa bokk ci jaamu yàlla ah. waaw lii dafay tax ba coronavirus bi du am ci yow accès waaw set moom daa bokkee séeréer bi rafet na de dàll yi tamit rafet na waaye sa tubéy bi moom xam naa ni moom xaala gasi la bii mooy xaala gasi <laughs> waaw waaw tubéy bi moom xaala gasi la xaala eh. <laughs> lii laay bañ lii laay bañ waaye lii nag moom moom mooy dundal sama xol bi xamul loolu séparation ah lii laay bañ waay on a bëri problème ah, déedéet ah. bàyyi leen lii eh? eh sañ-sañ a de. gis nga sa loolu mu def. sañ-sañ a de sa. may asale nii. xasaa mooy kii fa laay dem xew wa. waaw xew xasaa bi. ah xasaa ma mariage bi bàyyi nañ ko. mariage bi daal police a fekk ñuy xew bu police tas na lépp police a ko mujjee tas sànq. waay la xew bi bokk ci. aw an é police an lay def ci xew. xew aw aw père yow aw aw vraiment man père père bi jaaxal na. kon yow wéro gouvernement bi ñoo

kan kan mooy tas xewam. moo ma jaaxal. fi coronavirus bi tol ci rew mi tax nak ñu tas xew. wax ah waaw léegi fii ku fi ku fi ëmbal sa sa gal doo ko doo ko ko takk. wax dëgg yalla ah ku ëmbal sa gal doo ko takk waaw. ku jur sa doom doo ko doo ko doo ko mari. waay loolu lañuy dalé dalee waay yow. lépp lu ñu mettre en quarantaine ya ngi dégg bu baax te gouvernement bi sax mom dafa ni ñetti nit yu taxaw wala ñeenti nit yu taxaw kenn ku ci nek na may à distance de tolloog un mètre. 1 mètre d'écart un mètre. Oh, mon père. Oh, oh, dama lay gaañ. mon père eh. naa la conc nga xam. naa la conc nga xam. wax na mon père xam nga lu ma bëgg nga bàyyi ama ama ama Zeyna mii. Eh, xaw ma ah. Zeyna xaw ma Hercule xaw ma Yoraas. waaye kii moo boosewul kër gi maître yow Idrissa yow ngir yàlla yonent bi yow mënoo mettre sa bopp en quarantaine te nga bàyyi sama kër gi Idrissa feebar bi du ay kaf bàyyil sama kër gi bàyyil sama kër gi li laay war a suul yi li laay war a suul yi Idrissa yow moom sa ah, papa moom ni muy defee nit dafa mel ni coronavirus bee ko dal. eh Zeyna toppal toppal toppal eh, Gabriel. Gabriel ba nga buuse fi lii laay xaar nga buuse ko sama yére bi a xaar nga jéggi ko muy jéggi naa sa koor yow ba eh defal nii dafoo sax defal nii defal ni defal nii defal nii bàyyi defal nii bàyyi bàyyi defal nii lii jéggi nga ko muy jéggi nga sa koor ci biir ci biir xool ko muy yappar yappar nit. taasam ni di mel ni maynees bu dox acca waay yow yow moom Idrissa yow yow yow yow yow moom Idrissa yow xaw ma nag yaa ngi dégg sama porot xaw ma waaye yow soo bàyyi sama kër gi Idrissa bientôt dinañ ñu dégg dinañ ñu dégg man ak yow ah ñu dégg man ak yow ndax si ñi may def yi sax wóoratul déjà te naa metti sama bopp à quarantaine nag way way